mbokku internet yu 24 actu yi nuyu nañu leen xibaar bu rot bu ñu jot rek jamono ji ñuy wax ak yéen mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak kii di Clédor Sène daan nañ leen nag bàyyi bàyyi néeganiku mu mel ne rek nekkoon na loo xamante ni ñu ngi ko loon ñaan boobee ba tey ba gis nañ sax démb délégation xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir daal di yabaloon rek foofee ca cité kër góor gi bañ banjana woon fa ak njiitu FRN waaye nag boobulee waxtaan bu di Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ak Clédor seen am nañ nag liberté provisoire euh, mu di bàyyi néggandiku waaye nag ki nga xamante ne bii moo di Birame Souleye Diop ak Abbas Fall ak lu toll ko fukk ak juróom-ñeent rek ci ay manifestants yoo xamante ni rek jàppale woon nañ leen ndiki rek ci convocation avorté bu Ousmane Sonko boobu lay jàll waaye nag ñoom bàyyeeguñ leen ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen kon naka nañu jàpp mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène bàyyi nañu leen waaye nag ñi nga xamante ne bii rek wax naa ko léegi ñoom nag bàyyeeguñu leen lépp lu ci fasaa rek dañ leen ko indilaatal ci seen si bile di 24 actu yi jërë ngeen jëf.